sëriñ abibu sëriñ laat moom abibu de ñoom ku nee ngi sellal ca Touba gar ca nag ba kanam mbirum sëriñ bii ku yeex nag gaa dem bàyyi ko bul sikki sàkka duggal bul wax ma xaar ba kanam sëriñ bi daa wax ni Touba kenn nit ku setal lu tol ni tàggum përëntaan maay kawarlu bayam am néeg ca aljana moo tax nag ku buub ba mu set mu yokk leeraay bi buñ koy fay mu rombi kanamam mu rombi kanam ku bëgg dem ca kanam Touba ngi nii ca kanam as ndaw la suy jaayu gën fee yomb yomb canam muy ñaari téeméer da lañ laaj wenn weer wu ne nag muy at mi douze mille ku def nii nag mu sëy si këram Seex Gaynde Fatma danoon koy laaj na laaj lu ñu man te def ko fu ñu xam te ñii liñ def de ñëpp a ko xam wolof yi nee lu fis nag feng kenn du ko jeex jëf nañ fi Touba lu ñëpp gis ñu xeeb ko di dem lañ njëkke mooy li hitteel mbooloo mi fii fi dëkkub Seex Bamba beeg li ko wër loolaa di wér gi yaram juróomi centre de santé fi mu ne sos nañu ko Lansar bu Béral tegal kër gol wa Daaru Xadim Touba Ndiaré may juróomeel am ñu sotti ci ñoom yii xaaj yeneen ya desas lëf ña ngi ci jublu ñu xam ni wér gi yaram ak cet de moo di ndeyam te ndey bu soowa ma manqué liir ba day laxitam otoy mbalit yii ñu daal ciy jënd lim bu takku jël jox ko Baye Fall yi sëñ Touba gisees na dëggam ñu sangu ay éclairage bii jënd ay prosek téer def ci dëkk bi fépp yi leer du am fu lëndëm juróom-ñeenti téeméer nag yu teg na juróom benn yi fukki nag ci ay lampi di leen jënd itam wër poto yëpp bu piilam lakk rek ñu defar te quartier yëpp ci corniche yi di saay la dem guy mbind gaar bu mag ak su raaki daaru mi ndaam aatu dëru ma naan xaaxira kër ñang itam pencum gedeet leer ga ma ngi fay jolli julli fa gee puso bu sew ba waddoon min wéet nga far ko te dem fu ñu àggagul fu ne bu ñu yàkkamte léegi ñu ñëw seen naal yi lenn du niir Tuubaa de lañ bëgg ndam wut nañ juróomi wanag yokk quartier yooya wanag ngir margu bi gën a laabaat set gi yokk itam forage ba paanoon ca Baxdaad ñoo fa dem defaraat mu ba ndox maa ngi baawaan laaj ko gars yi ba xam bu université bii it ñoo fa dem defaraat bam ba mu te des na yeneen yoo xam ne neexul a lim wutal nañu oto sapeur pompier bu dëgër wut ambulance bu ñeemoon fii sax mu doy sëkkitam ñu wax ne sëñ Modou Lo moom gaa bu daayira bii muy jiite ngir nag lu aar Touba ci nit ñu xajam mu doon safinatu kuy sol col ja ñaaw da fi yëng mu doon safinatu kuy sol col ñaaw na fi jóg ñu jënd ab oto daal koy jox yemuñ ci itam jumaa ji yi nag na am wàllam danañ ko di jox ci weer wu nekk mu disembarkeelu suñ sumb itam imaam dafay am te mboolem noddukat yi de am te daara kaamil ji te daara kaamil ji am nag ku nekk mbubbam daara yi nekk fi Tuubaa ak daara yii ci feneen lañ yóbbu seeni ndimbal daara yi ba neexul bu koor jotee daañu fab suukar kafee yu ni mel tàndarma beurre meew ak i fromage nga doo dana am bu gàmmu agsee ñu rey ay nag di séddale ko te tam xarit it da def noona màggal itam inna rijaala xawaamoona la yàlla waxoon jigéen ñi nag ñoom ci sëñ Tuubaa ji ca kanam jigéen ñi nee ñu dañoo mën góor ñi dëkk bu ne Tuubaa de moo raw dañoo ñaar benn góor ñi ñu xam bul foog ni góor ñi dañoo yaafus jigéen ñi dañoo ñeneenti góor ñi li lee tax waaye du ñàkk jom sëñ Fallou noon na jumaay Touba ji daa génn bis mu gis jigéen ñi dafi ay njooxe ànd ca jëm sëñ solu neen bu ngeen fexee nag ba sooroor bii ni noomu ca kaw jigéen ñi noomu ca kaw man Fallou lee li ma xam sëñ Fallou wax ni mu luy lii góor ñi ñoom anañu liggéeyu sëñ bii jigéen ñi mën ci góor ñi accam sooroor ni noomu ca kaw jigéen ñi noomu ca kaw lalub këppam lalub këppam góor ñi xëy sol seen i daal di dem jigéen sooroon ni noo nga ca kaw jigéen ñi noo nga ca kaw lanub këppam góor ñi ñooy xëy soldaal siin daal di dem góor ñooy taxan soq ñooy wol rooti boo ko gëmul góor ñooy jëndi gaas te duñ kaas naa taxan mënu lëm yaay xëcc ab robi naa tam naati róotiwu ma yaay fay mbalit fay courant yaay fay mbindaan mi itam jigéen ñi démb dañoo man tey dañoo man itam fu ñu woote ngir sëñ bi ak yàlla ak yonent bi ñu dem sëriñ bi noon na amul tànk yi gannaaw yu kanam lay am kuréel bii de Touba Mbacke ma ca kanam Touba de ma ca kanam Touba Gileer ca kanam kanam kanam ca kanam lañ yàgg jëm ca kanam Touba de jëm ci kanam ak gar la jëm ci golam day xuus ba jàll ku koy kar jaay na nag ba kanam yàlla ak yeneen beeg sëriñ Touba na jàppale leen ngeen àgg niw yoon te ngeen wér fan yi guddi itam seen ren ju nekk na man daaw daaw ju nekk na man